ak ba ci faculté bi ñu tudd al ulum diine sax man mosuma d'accord ci ak dirasat islamiyya dañ ne nañ ko bi ñu koy tuddee ulum diine état bi daf ne woon du nangu jàngu islaam jàng bu ñu wax tudd noonu mu di ko reconnaître parce que du état rek la mais dafa am yeneen mbootaay yu yu bokk ci état yooyu ay CAMES ay ANAQ yooyu du yëfi état Sénégal du ANAQ xëy de moo ko moom kon yooyu am na baat yoo xam ne bu ñu ko ci tuddee man ci laa wax ne kon nañ ko tudd al ulum diine kooku moo gën a walaa ba sax ndax boo xasee aloolu mu din lépp ngi ci biir ci loolu la état bi fexe ba reconnaître fii bi ñu ko moo tax ndaam boo ko xoolee moo mujj ubbi dakaar ak Bambey ci ba eh, ci école scientifique yooyu ndax baat boobu lañ doon rayante ba ginnaaw bi la président ne nañ ko ci dugal kon ci lañ tudde sax euh, enseignement supérieur euh, recherche ak innovation boobu baat boobu ñun ñoo tax ñu dugal ko ci baccalauréat bii nii la bu ñu deful woon test bii ndax boobu dañu daan taxaw fii naan leen bac état diplôme yi du ko nangu bu ko defee ñenn ñi di mer naa def état diplôme kenn du ko woyofalal nit nit bu ko demeen for ko ci mbedd ma sax d'accord ak moom sa yoon nekku ci wante état tamit ni mu doon doxee mooy li mu diplôme bala nga ko mën a reconnaître ci dara da ngay ki ki koy reconnaître day xam lan nga ci def ñun fu ñu mës dem day xam lan moo nekk ci diplôme bi loo rek la woon xale yi am baccalauréat bu Azhar parce que état bi dafay sélectionné ñi mu jël ñëpp ci ay baccalauréat am na ñoo xam ne amuñu ko te fekk am nañu niveau bu baax nañu xool ñun nañu leen mën a jàppale fii ndax fii tamit gis nga ko rek dafa dafa dafa dafa metti waaye nañ leen ñoom ñëpp nañ leen nañ leen nañ leen idaara ama ñi ngi ñaan sëñ Saliou ngeen sélectionné leen képp ko am baccalauréat boo xam ne du état te ami ko Azhar nañ leen ay ubbil uy bunt ji muy faculté yi nga xam ne am nañ ko muy dakaar muy ba mais nag il faut ñu def leen benn année préparatoire pour sélectionner xool ba xam seen niveau yi loolu moo taxoon ñun ñu ñun njëkk a ñaan année boobu ñun ñoo ko def bu ko defee xale yooyu bu leen dem di fenn di di di wëreelu